ñu ngi leen ko doon wax sànq Pikine bokk na ci diwaan yi gën a sonn ci manifestation yi la weesu ndax ay doomam yu bari ñàkk nañ seen bakken lu ci mel ni Xaadim euh, Ba nekkoon ouvrier moom waajuram bu góor di Ibrahima Ba ba léegi di dund métit bi demoon na sax dalal jàmm ngir jël néewu doomam waaye dañ ko ne faw ñu autopsie ko ba noppi ngir mën ko koo jébbal moom Xaadim euh, Ba nag euh, kan la woon ak anam yi mu faatoo papam ak xaritam ñoom ñoo koy nettali Moussa Mané ak Abdoulaye Diop. waaye daanaka njaboot bi mu bari na. yow nga bokk si ñi nga xam ne tey ñu ngi dund boobu si si si lu jëm ci euh, manifestation yi. waaw ma toogee sama ma ñëw ñu ma sa doom door nañ ko bal dama jóg sol sama yére dem te dispensaire lañ ko denc ba ma demee walaa ko fekk ñu muur ko ma ñëw ubbi ko xool ko ñi ko xaadim ndekete boobu dem na ñu fekk mbubb mi li ma xoolal fii ma gis baa ngi nii ma gis impact bal bi ba ma ko ba ma xoolee impact bal bi sigg xoolaat ko rek samay rangoñ tuur. waaw pratiquement bi mu xaw de man sama biir néeg la ma ma déggee coow li ci koñ bi ci laa génn laajte ñu ne effectivement xaalis bi de parité la ñu jam ci manifestation laa génn laajte les renseignements ñu ne ma ñu ngi vers euh, Pikine ci cité Pépinière benn district sanitaire mais en cours de route ci lañ ma ni ñu ngi ñu replié nañ ñu ngi fii ci jàkka ji ma dem ànd ak papaam biñ ñëwee tiim ko xool muri corps bi gis benn impact fii sur le sein gauche après ci lañ ko muuraat ma ne ko léegi ce qu'il y a lieu de faire on va faire comme jox nañu euh, constaté nañu la décès kañ dem au niveau du commissariat de Thiaroye ci lañ de Thiaroye fa la nekk ba vers les coups de 22 h ñu xëy see le dem nañ Pikine pour parce que c'est de la compétence du après ci la après ci la ñu dem commissariat Pikine on a la déposition ñu jox ñu au nom la loi dem leen CTO ak local de militaire de local bi ñu wàññeekoo nag la ñu indiwaat corps bi ci jàkka bi comme y avait des risques wóorul xam mënoo ko préserver pendant tout ce temps la il y a eu des interventions un peu partout ba ñu admettre ko euh, au niveau de Dalal Jamm donc fa la ñu ko mujj ñu nag a pour plus de sécurité ñëw leen le ci lañ nii fa le matin fa lañ demee ñu demee ñu ne nag bon actuellement bu sa vous avez vu le lot ay kii corps yi war a autopsie mais le docteur nous a ko affirmé que ni demee incha allah il dinañ ko programmé ko gis ne a ngi jaabante hôpital bañ fa jëlee buñ fa jëlee lii la nee ñu daal bu subaa ñi ñëw ñi ñi nga xam ne dañ leen war a autopsier trois personnes la ñuy toog dinañ ko mën a jot dans dans la journée de demain ñu ngi ñaan yàlla nag autorité yi nañ ñuy libéré suñuy suñuy néew ndax jullit ak catholique moomu ñu lii néew gaawal ak defar denc loolu la yàlla santaane depuis yi ba tey waa nañ ñu dimbali jox ñu suñu suñu néew ñu denc ndax am loo pression boo xam ne sax dina wàcc dina jafe nag mais xool nañ dox suñu néew daal. tey bu euh, nekkoon sa taxawaay euh, naa ni sama doom la parce que man papaam ñoo doon ànd de longue date et li ci la majeure partie du temps soit sama kër lay nekk. ñoo jëloo quoi. la majeure partie du temps suuf sama kër lay nekk. un gosse calme bu yaru du si gis a xool nit. ça c'est pas man parce que mag laa mon âge wala wax loo xamante ni dafa jub c'est pas qu'il est discipliné indiscipliné wala yàlla moo doog ni àpp bi fii la yem lii la suñu borom mais c'est un boo xam ne à l'unanimité loolu laajee même cadre lañ lay wax loolu daal lu ñu ci yoon may rek dinañ ko topp ndax ñu ñoo ñàkk ci ñu ñàkk ah maanaam nombre bi bare na bare yaay goo xam ni ah képp ku ñu ci mën a jàppale ba nga xam ni ëllëg dinañu xam fan lañu jëm ak ñuy def lii waa ñu teg leen ni daan ñun daal loolu la ñu collectif bi loolu la ñu wax collectif bi yëpp ci loolu lañuy ñuy d'accord gisee guñu nag mais man maa dinaa jël doon porte parole sax dox affaire boobu buñ dee wuti avocat buñ dee wuti Amnesty International organisme yi ci àdduna yëpp dinañ ko yëg dinañ leen yëgal ni lii am fii ak na dakk parce que liñ ciy def nag liñ ci def rek noonu la nañ nañ ñu dimbali daal. parce que fii dafa am benn particularité boo xamante ni. dafa am fii ci koñ bi ñi fi yëngatu yëpp ci daayira nga leen di gis ci diine amul leneen loo xamante ni loo xamante ni euh, luy lu maanaam dëppoowul ak mbiru diine ci leen yëngu weesoo ay daayira amul leneen lu ñuy yëngu parce que loolu on l'a instauré ici man bokk naa ci ñuy instauré loolu fii agresseur mosu fee taxawaal mosoo fii bu amee sécurité man naa ne en grande partie man contribué naa ci loolu c' est le quartier la waxuma la zone bi c' est le quartier le mieux sécurisé waaw bandi du fi traîné agri def ko du fi traîné loolu ñun ñoo ko donc on a les deux là ñoo édu soo été éduqué dans ce sens. donc duñ koo xam ne du nit ku fit la. déedéet su si gi xool mi sax di ko def du nit ku fit calme on dirait que da nga naan kii sax du soxla lii sax boo ko da nga naan kii xamoon nañu kuy dem du nit du nit moom manifesté wul ful bu jóg la rek xale yëpp topp ci koñ beeg koñu caare ñëpp a jóg dem ah day xale la xale lañu dañu cëpp rek mouvement bi dem waaw mbéy du coobare xale bi denc ñu ko wala yarul wala leet déedéet bu toog ci pooju ndeyam la ngeen baal ma waaw ndax li may wax ci moom ñi man maa ko dund ak moom ak waa koñ benn yaayam. souvent dañuy reproché parents yi xam nga c'est ce qu'on très souvent mais gis nga à chaque fois kii lu mel nii xam nga ful ful la rek mënoo xam kii yow la nekk këram ki yor doomam yar doomam ba mu tukki ko reproché que ni yaroo sa doom mais boo faut rechercher les causes ailleurs vraiment que di reproché xale yi naan yaruñu seen doom wala tey ma wax ni moo fi ne ñoom ñu man bokk naa ci ñi instauré ba ci zone bi kenn ñoom ba lam bi kaa bi amee ñu ne dañuy dem taali kii man ñu maa taxu ne la bu fi kenn génn xam ne nañ jiw moo ko rey mais dañ toog ni dañuy def vendetta ma ne la xam nañ euh, waaw non ñoom biñ ñëwee xam nga wala mu ñëwee riir mi am booloo ñëw même sa son père noonu la ko yëgee ñëw riir mu ñëw rek booy ñëw ñëpp naan diw xam diw moo ko rey diw moo ko rey loolu la xam nga ñoom yow sous le choc mën a expliquer nii vraiment kii la wala tel ñii ñoo ko kii mais à l'unanimité dañoo taxaw ni tiw moo ko rey un gosse un accompagnant de Boy Niang paraît-il moo tax pour Boy Niang c'est comme ça qu'on a eu les moom da doon jàng ngi da doon liggéey moom mécanicien la woon ci moto yi la nekkoon ak jaay pièce moto alhamdulilahi rabil alamin yàlla defal ko ci xéewal ubbil ko ci wërsëg boo xam ne bu ma saan wàcc bàyyi am

lii ñu xool trouver des voies et ba arrêté lii yàlla def ci wis ndox mu seen ñi nga xamante nekk les parents ak ñi nga xamante si ñàkk nañ ci seen i doom que vraiment état bi jàpp ci aussi jàppandil leen parce que actuellement boo demee au niveau de CTO mën nga fees tel ñu jàppandil leen koor yi parce que li nga xamante ni moo gën a rafet ci jullit euh, bu génne àdduna nañ ko jébbal boroomam mais imagine un gosse bu décédé depuis yi nga téye ko njaboot gi ñëw nit ñi ñëw di yendoo chaque jour ak de dafa métti et que la vie est dure nit dafa entre waxoon démb rek laay wax lii am ci réew mi la dakk te buy dakk ah nguur gi nañ ci jóg jël seen i responsabilité lii bañ a amati ci réew mi ndax lii ñaaw na suñu Sénégal xamuñu lii jaxase nañu xel yi yàq nañu xel yi nit ñi lekkatuñu naanatuñu ba pare bëgg te ak naxar. loolu dafay ëpp nañ ñu dimbali sonn nañu mënatuma wax daal merci beaucoup Moussa Mané Abdoulaye Diop euh, Khadim Ndiaye mu nekkoon document euh, ci Khadim Ba euh, di benn ci ndaw yi ñàkk seen bakken foofu ca pikin duñ ci mën a taxaw nag peut-être dinañ ci dellusiwaat ci kanam ci ñaareelu pàcc bi incha allah ndax RFM ñoom egsi na seen gan muy Déthié